déglu ma wax la ci mom bëgg ra nga jariñu fa mom moom li nu moom gennuk la fi am fee salio la nu mir ki la nu doy loo sang bangé ma wax la tewan la borom deggu gu ne xajar wayal ku am ikamat yow ma way salio la defar na yeesal na di koy camang ndaw ñi jóg nañ yarkat bu mag baa ngi feeñ na Saliou la nu ngi la nu tayloo baa ngi xol yaa ngi jëmm yi ak ru jox nañu la yow mi cosaanu mbaax yépp yow la Saliou la nu ngi la nu tayloo baa ngi hadis yi taarix yi walaay lépp lu baax la. Bonne tous les 15 jours. Ah, ah, ah, oui ñépp del si woon jamono du tax nu war borom jamono saaliw lanu miin kii lanu doy roo sanu baage ki lañ xam ba far am lu yàlla saaliw la gas leen ndoxum ngëneel gaa ngi mos leen ki leen sut te mooy ki lépp nit leen sangub bi déew yaa ngi leer naa jërë ngeen def mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax xam ngeen baaxoo ngeen di ànd ñun ci émission yi spéciale yi nga xamante si ñu ngi ko baaxoo di ànd ak nag à partir de aujourd'hui xam leen ni ganu mbégte mi fii rek lay ame deux semaines yu nekk ganu mbégte mi ci restaurant mbégte mi xam nga boo bëggee lu neex te saf te sell fii rek ngay ñëw ci restaurant Mbecté moo tax yéen ñi nga xam suñuy internet ngeen baaxoo di ñu topp ci information yi ak ci jataayu spécial yi nga xam ne ngeen ko baaxoo di ànd ak ñun léegi incha allah 15 jours yu nekk ganu Mbecté mi ci biir restaurant Mbecté mi lu bees tàq nag ko kenn